waa Thielane yaakaar naa seen doom bi fii le grand champion Thiatou Limousine am combat bu mag waaye lu nar a neex waaye lu nar a loolu kañ la le 11 lay doon fii sa arène nationale yaakaar na dem dañuy indil ndam waaye rawatina bii yoon. yaakaar naa boobu mooy euh, dixième combat dix victoire wala dix combat deux défaites huit victoire palmarès bu baax la kon nag cat euh, tey ñu ngi dalal si HMTV chaîne de la jeunesse mais encore chaîne de le monde à travers euh, les réseaux sociaux ñu ngi nuyu suñu yaay yooyu toog ah ñu ngi déglu encore ndax temps amul peut-être waaye wote ñu wuy la encore kon ñu ngi nuyu encore kulukul di nuyu encore imaamu dëkk bi waaye di chef de bi waaye kilifa diine ak kilifa aada yi ñuy fekk fi encore ñoo xam ne encore ñu ngi toog seen kër te yàlla def encore seen yaram xaw a jege ñu leen di ñaanal fëgg seen nga xam encore nekk encore nag caabi féete leen ginnaaw yàlla leen yàlla dimbali ba ñu delluwaat si seen njaboot kon kooku le grand champion Thiatou Limousine mooy def soo noonu ànd ak gars yi kon na ñu ngi fii ne émission bi xam naa ni Père Bécaye moo waroon def tey ne yàlla dogal ne dafa xaw a tawet te mënut a ñàkk kale nañ ko pare moo tax ñu ñëw fii ñu teewal ko. kon na waa Djilane kontaan nañu nañu takk seen doom kon yàlla nañu yàlla may ñu dugg seen jàmm waaye génn si si bis ngeen ñaanal ko nga xam suñu doom la bu baaxee ñun la waaye tamit bu bënee ñun la waaw kon lu ngay faral di waxee yàlla may jàmm taw tay sir bu dufan ak wér bu jëm bu jële teranga bu doon tànn xéewal bu saawan baawoon yàlla añu tetto ñu sàmm ñu ñu defal waaw kon ñu ak le DJ ba kanam waaw Obrigada! si la yombul quoi lii rek dama ci am contentement bu rëy waaw maa ngi sant waa Jiraan Joor bu baax gis naa seen taxawaay mag xale ndaw bu ma xewle ñëpp may taxaw loolu rek dama ciy kontaan ak Serigne Alba Thiombane. di sant maam Alba Thiombane bu bu ñu mel ni tey rek ginnaaw yàlla moom la. jërëjëf Baye Alpha Thiombane jërëjëf Baye Alpha Thiombane moom la ñuy demoo di ko safoo di ko tiitaroo moom moo di dem maam Alpha Thiombane laay tiitaroo. voilà gis nañu Milane Dóor tey xam nañ ni ambiance am na fi à 100 pour cent nañu entraînement yi fi def te yow nee nga carrément woote ñu wuy si la d'après ne yow sa combat bi actuellement mën naa ne ñu ci sur si moyen voilà yow nag actuellement yaa ngi jàkkaarloo ak waa Alim TV mën naa ne téléspectateur wala ci partout dans le monde ñu ngi lay seetaan ñu ngi lay am en direct seen YouTube bi nga xamante ni mooy Alim TV léegi looy wax say supporters yi nga xamante ñoo toog say papa ak say yaay ñoom nan la ñuy waajalee dimanche ak yow mi nga xamante yow yaa ñu tàmmal bëre daal ñi bi ñu nangal ko lool sax. waaw comme ni ko waxee rek xam nga làmb ji moom suñu deret la ñu dañoo fekk ci kër gi ñoo rek ko waaw bi sama papa Mbaye Thiombane sant sama maam booy bi ma yar génn na maa ngay ñaanal bu baax ngay ñaanal bu baax sori lu ma mel ni tere moo ma yar bañ na ba tafa yaamaa lañ doon wax. l'émotion jigéen c'est l'émotion nag tey nag booy tey jii dañoo ñëw ma ah, wax ni nan ngay préparer le euh, 11 avril incha allah fii ci naa la sànq yaa ngi tàmbali bëre tey jii ñëw nañu fii nii si open press dégg nañu démb tamit bi nga nekkee application tey euh, question yi nga posé ak yi nga répondre après bi nga nekkee kat ba léegi ñaata combat nga am ñaata défaite ak ñaata victoire. waaw yàlla dafa def ni ñun ay booy lañu xëy na dañoo teel a dugg làmb rek tar bi lii mooy suñu onzième combat yaakaar naa am nañu dix combat huit victoire. ñaari defet wa di ñaan yalla nek defet bi yeb bi waa yeb yëpp waa Jiraan maa leen di jox rendez-vous le 11 incha allah arène nationale dama koy yëngalaat. combat bi nii dafa am fu ma ko tek ndax da am fu ma mën a yóbbu ndax spécial bi moy suñu premier combat spécial ndax lamb ñu dañ cee bok lu way di am làmbar ñu dañ ko wara am ndax dem nañ ko lepp lu mu laaj barki Serigne Babacar suñu dañ koy def. baax man li topp sama ginnaaw jaaxaan baaxee jaaxaan jeex na waratuma man bu ma jógee lu ci daan joxe tundu Mor laa béy ji kii ba ci waawu Thiès kii ba Jolof nit gars yi bay jógee si bor di caatu li ko kon loolu yombul. yombul kon sama loxo. maa ngi tàllal sama loxo waa ci daan joor yëpp amul xale amul mag di sàkku ñaan bu baax ndax ndaw laa rek damay wut rek. yalla moy may moy xañe ñuy ñaan yalla bu jour ba mu and ak ñun may ñu ndam set wicc inshallah so ba du yomb de waji la yepp nañu waj lu metti la koy tek barki maam Alpha Diomba léegi ah, sama entraîneur ma ñëw sama bopp gëm ni man doomu séeréer laa seetu maam Alpha Combaan laa lu ma gëm rek dama ko war a mën a ñoddi dama ñëw ci doon xale bu ndaw ñoom Malick Combaan ñoom konaale di ma teetee di ma naan caat jaaral fii jaaral fii ndax xam nga rek àdduna amul solo ñun ñëpp ñoo bokkoon bàyyi bokkoon tey day am nit ñi moo gën ku gaam ndax alal saxul mais boo amee nit ñi rek ñàkkoo dara xam nga lii woote ñu ñu fekk yombul di am contentement ci Lat Dior mënuma lim ñëpp mais yàlla xam na ni kontaan naa ci ñoom bu baax a baax ak waa Boyti waa Kouloum waa Ñexep waa Louga waa Diab tundu bi yëpp di sant sama toos Mbaye Diab fi ñoom Balla Gaye taxaw nii heure war na fekk mu taxaw ba xëy na jaam ak pexem yàlla ak dogalam. waa di ñaan yàlla li mu peete man mu andil ko waa laan joor roi des arènes laa naka leen di mën a wax pour que le 11 avril mën a dem arène nationale ñoom nan lañ koy waajee ak yow fii nii ci kër gi yow sa wàccaayu làmb ak famille yëpp man waxatuma sax famille bi mais population Filaane Dior mais partout dans le monde naka ngay waajee sa ay. waaw ñoom ñu ngi waaj bu baax ama adduna moom yoonu ndaw gaawul nañ ko woon trop mais xëy na du jot yomb sama papa yi nekk. aw ma seen fay ndax li yombul ñoom seen jogoon nañ bàyyi dégg seen soxna yi waroon am yeneen yi tey ñu war a dox mais dañ ko bàyyi yëpp ak sama yaay boo yi sama maam boo yi ñëpp di sant ñëpp maam boo yeeg yaay boo yeeg grand yeeg xale yeeg ndaw yëpp waaye di tànn sama staff bu baax xam rek am na ñoo xamante mënu ma leen ñàkk a tudd ñoom Abdou Fall ñoom Umar Mbengue ñoom Bakka sama rakka ñoom Ali ñoom Ngom xaw ma seen fay ñooñu dañuy bu ma amee combat seen litre dañ koy bàyyi du ma leen jox dara seen xaalis dañuy génnee di def kon loolu yombul sama defalu ma dara defalu ma dara barki maam Alba mais yàlla baax na un jour viendra man sama yéene ci ñoom du ma taxaw fii sax di yàlla ñu yàlla suuraale yàlla ñu yàlla suuraale du du ñoom rek ci joor daa daa am benn am ci biir ci laan te dama ko Tilane dama bëgg mu weesu fii ma yóbbu turu Tilane foo xamante ni kenn mënul ko bu yóbbu su am dama leen jógee comme ça nga mën ñoo wax yow ñan ngay oo xam naa ne sax mën ngaa invité ñëpp mais ma bàyyi la am wax ci téléspectateur u Azim TV actuellement wax naa la sant yi mënuñu kaa yaa ngi daw te ñu koy gis d'ailleurs ñëpp ñu lay ñaanal léegi sa combat 11 avril dimanche stade Arena bu Pikine léegi yow sa combat nag ñan nga suñu oo pour ñu mën a ñëw jàppale la bu a baax di leen sant bu baax di nuyu ñëpp mais war a góor a ndax séeréer bi faaw ma wax ndax li nga doon moom boo ko bañee day fekk nga ñaaw man deret séeréer mooy daw sama yaram ñu dongee séeréer waaw deret bi mooy daw sama yaram dama koy ndamoo tiitaroo man séeréer pire séeréer ci ndey séeréer ci yaay séeréer ci lépp min kallal ya sora won ñaani so bu baax fofo ndax ndami so i ndami Fampournere ndami ndami Tundumbe tout ndax Tundumbe mo ñor Tundumbi boyti li ka dalee Tiwaawan boyti ba Daaru ba Fulum bàyyiwuma kenn Tundumbi mooma ñor mais waro ɓooru tout mais waro ilimani genara gisso gis na moo tax ñaan bu baax mais waro chef de village bu baax ci sobal ñu ngi sàkku ñaan kuye yaay góor waaw di doog e doog ba sa mbay sëriñ ba sëriñ mu yàgg fi day sonnu ci man xaalisam lay génnee di financé ci man daf may ñaanal ba pare génnee xaalis bu mais tax avant nga continuer parce que mbokk téléspectateur u Agen TV bi yow sànq ba léegi yaa ngi wax deretu séeréer fii mooy daw sa yaram mais actuellement wane woo ma ni séeréer nga à 100 pour cent dama bëgg nga làkk séeréer pour nit ñi waaw. mais waroo kuy site internet Ibera ndax lii rek Ibe rek wun wuna quoi ndax Ibe ñaanu tari fini ci Mor laa ndax acce wote Ibe du Mor laa acce ci laa Ndior ne te ote ko bari nde o te ko ala international ɓaari on da jet lolu iba mo kontan no kontan na ba meɗon da ko fo pangi da hibe wunta torop wa yàlla na jëm kanam yàlla na jëm kanam anda daano bu baax daawda daaw da maa lay woo ci biye wala ci kar yi képp ku mënul dem esaat rek bu mu mënee jàppale ci benn may nga xale ñu dem ndax esaat dimanche dañ ko war a feesal ndax buñ ko feesalee grand combat lañ jëm grand combat lañ jëm daa nañ fexe bii jeex papa yi xeebu ma ñaar dërëm lu ci waay mën a jàpp rek nañ jàpp te yàlla tax nga xam seen doom mooy wut si waa di woo fan sa këlu li mooy yëpp 100 pour cent carte yëpp biir dëkk kontaan naa ci gis naa cër bi ñu ma jox gis naa bi ma suma xewlee nit ñi kon ne waaye di woo le 11 incha allah ñu dem jàpp daan ndam day ñëw de incha allah gëm nañ liggéey nañ ci bu baax boo xoolee dañoo liggéey ba ñuul mukk ndax combat bi rek ndam rek moo ñu bu leneen ndam moo ñu ñor te incha allahu rabbi dina ñëw. central population bi yëpp tund bi waa Djilan Dior yëpp waa di woo autorité yi monsieur le maire Yves Lamine Ciss day jàpp ci affaire yi bu baax Yves mënoon na wax ni bokkuñu commune mais bu ma xewlee day yëkkati xaalisam du dooleel ma ma ngay jaay rek maa ngay woo gisuñu ko de du ma wax loo xamante ni mooy loo gisuma ko de maa ngay woo ne ñu ñëw jàppale ñu ndax gox bi ñu ñor waa ni sax dañu ciy jàpp yëpp moom moom mbaas dañuy sonn bu baax Modou Ngoné gaar yi moo koy jël billaay xaalis bëri la may jox mu di ma jaar am wallaay la azim sama papa mbay ba moom da ciy jàpp bu baax a baax ak sama yeneen gaay yi ku lim jum di sant sama copain Dias bu baax dama bëgg ngeen tàccul ma ko langal. ndax borom baax la. àndoon nañu fu ñooñu jàngal bëri ñooñu tekkee fii ci groupe bi. moom la suñu Isa. xam Isa bu baax. di sant Isa bu baax ñun bu melee nii tey ci làmba moom la ndax ci ginnaawam lañ doon topp. ci ginaaw dañ doon dox ak ñoom langal yi ñoom bayaasan ñoom aliou bara bo ay tu tank lek ndaw yi yàlla leen yalla bay kuttu fan ak mag ñi yàlla leen yalla bay kuttu fan di leen wax ni ci lan jor benn bop la kenn mënu ko xar ñaar dekk bi ñun ñoko mom lañuy defal defar tay bañ a fi fii ñu fi nek ñepp kenn ku ci nek mën nga wax ci papa parce que papa dafa nek boy bo xamanteni man mi di wax man mi di wax ak yéen ni papaam la mais nag bu nekk booy bu baax mu jaral ma lu ne depuis bi mu commencé Mbapat lu commencé Pambal ba ñexet yaakaar naa ni seetaan naa ci ay Mbapatam dama daan gaare sama oto wala ma taal sama oto di ànd ak moom ba ba muy bëree Thiès damay yooroo fii ba Thiès yooruwaat mu combat yi mu bëree Dakar lépp ñaari combat laa ci perte te boobu dama am gàllankoor mais yaakaar naa ni man tamit donc awma dara. mais yaakaar naa ko te it li mu ko ci yàlla may ndam c'est que du combat bi taxul ñuy wax mais man dama gëm ni man mu mu sa bu lulul nga summeeku ñu la dernier butéel su ma gisee di tarambale rek man pare naa ci loolu yàgg naa leen koo wax laaj ko gëm yi mais la dernier ñu ruho ñu xool public bi gisoo ma ngay trembler man bu boba damay bég parce que damay gëm ni dañuy am ndam te man ko luma déplacer yombul te bu nexé yalla insha rabbi la onze ci bi yalla bokku na ci def sa pour nga bëggal di nuyu ki lii mbër mënu fee ñàkk parce la parce que yaakaar na maam mu taxaw na ay mbër la ñu woon soo rek da ngay parce que ku mel suñu papa Boy Ciss pour man sax taxaw su muy bi muy débuté Boy Ciss lay tuddee boppam parce que amul lu mu deful ci làmb waaye tamit euh, sant nañ yàlla bu baax a baax sant nañ bu baax a baax parce que adduna bi lii leen lañ ci Vraiment, nous tous sommes gagnés, nous sommes gagnés. Inch'Allah, non. Merci beaucoup. Bah, on a chaque année, c'est qu'à les mois de l'année, on a rien comme de yang wah, moi, ini est vite au lit. Mais donne un traitement, rek. Combat yi passé yëpp premier combat am. Parce que dañ koy di ko jàppale. Bu jógee ci combat combat grand combat la ñu bëgg ci moom promoteur yëpp li koy ñaanal mooy ni bii mooy premier combat am te bu ci jógee incha allahu grand combat rek lañ koy ñaanal.